pare nga ñu lay ruyal ak suppal di la toppatoo ci biir néeg bi mm-hmm. booy génn sax ay weer yooyu booy génn ci biir kër gi doo ngay yem amul génn dem doo dem marché doo dem di traîner ci kon kañ ngeen di ah. jël njël waa njël bi sa départ Mm-hmm. waaw ça dépasse boo xamee yow kese sa goro mm-hmm. ñoo nekk ci biir kër gi nga am ci moom yërmande nga bañ mu sonn mën mm-hmm. nga boo amee weer nga génn di ko jàppale ci biir kër gi liggéey moom boo demee duggal la indil la lu ñuy jënd ci biti mu dem jënd indi la ci biir kër gi ah. mais léegi luñ dem yel moo am de génn nañ cosaan moo tax génn ngeen cosaan génn nañ cosaan lii dafa neex ñun loolu samoon defaru waaw da allah da ngay defaru waaw da ngay defaru xam nga ne boo tolloon ne man balaa a kii <laughs> nii kay da ngay defaru dafa neex weer bi ngay nekk ci biir néeg moom ñu lay ruyal di la suppal ngay naan mhm. waaw macha allah da ngay defar kër boo génnee moom leeraay ngay génnee moom gis nga loolu ak kii tamit euh, pour euh, kii mhm. pour ñii di ñëw ci seet. Mhm. ñi ñëwaat topp si tànk noonu la. topp si tànk waaw waaw topp bu ñu la loolu tamit bu ñuy demee noonu. Ah. boo boo toppee seet bi. Mhm. ba mu am semaine. Mhm. am na ñoo xam sax ñu la gën a jege sax dinañ fa am weer. parce que ñoom ñoo fay nekk bu ñu xëyee di la jàppale ci liggéey bi ci biti noonu. bu ñu bañee sax seet bi génn. ñu ñi la topp mun nañoo génn jël liggéey kër gi yëpp di ko liggéey. fekk yow doo génn yaa ngi ci biir. ci yooyu yëpp. waaw jëkkër bi moom lan moo ciy paaram. jëkkër bi la indi. lan moo ciy un mois wala deux mois ci biir néeg bi. waaw ci biir kër gi quoi. waaw waaw moom mm. dala ciy comprendre. nekk ak yow ci loolu. wala moom bu ko neexee ngeen ànd de temps en temps. comme ñun ni ñuy def nii génn nii ci biir. waaw de temps en temps moom buy génn moom moom mooy génn dafa pare sax li ci gën a bëri. loolu wóor na yaay bàyyi ko moom rek muy dem li ci gën a bëri comme moom am na seet bu bees. Ah. loolu la doon wut. Ah. li ci gën a bëri moom ko góor ki ay moromam ñooy ñëw fekk si ci néeg bi ah, ñuy def ay sigil. waaw loolu nekk na carte mariage si biir néeg bi. ay sigil xam nga sigil. xaw ma sigil mooy yow kumba si di ba daal di sëgg ñun ñëpp ñu ngi toog moroom xale yu góor yeeg xale yu jigéen ma ah. rëkk la ci ginnaaw nga jóg nga ne kan la kan la ah. nga jiit ko kii fekk du moom ñu xëccaat la duga laal ba kenn ngay turbe <laughs> noonu lañ doon fooyee néeg bi day xuu macha allah day neex doo yàkkamti doo yàkkamti génn di fóoti ji waaw une semaine après waaw après boo pare da ngay génn nga dem fóoti yow say morom bu ngeen fóotee ba pare après nag sa morom yi ñëw nu muy demee nu muy demee fóot bi uh-huh. fóot bi dañuy gën a koñ ak koñ lañ lay ngay jël yëre yi waaw fóot bi noonu la ci kër gi xam nga mooy li ma doon wax rek booloo bi foofu lay commencé. Mhm. ndax ñu ne tey diw day génn tey tey lay fóot. Mhm. ma dogg surga yi ci biir kër gi. ak maire yi ci biir kër jëkk paa yi ku nekk mën a la indi sa yére ku nekk sànni ci morsam ñu dajale yëpp xale jigéen ñi la topp jànk yi ñoom ñooy fóot ngeen def bu muy génn waaw mooy bi muy génn waaw mooy jour bi mooy jour bi muy génn waaw mooy léegi daal génn na mais du génn génn dem ci biti dañu fóot pare def li ñuy may leen li leen di may après ñoom ñu moom koy moom koy li doon wax yëpp euh, kii na. wax na leen. kon daal yaay topp na topp na cosaan bi. waaw topp na cosaan bi ba mu baax. ñun li mu ko wax. bës boo comme ni mu ko waxee daal. ba maanaam gàttal. bu demee ba nga xam ne sang bi jot na. juróom ñaari jéeg yoo xam ne mosuñoo tas mosuñoo sëy. ñoo lay sang. juróom ñaar mooy. sept sept personnes ñi nga xam ne mosuñoo fay mosuñoo tas. waaw mosuñoo tenji. waaw ñoo lay ñoo lay. yaa loolu temps yi jamono ji ñoo lay yomb na pour ngeen gis ko. waaw juróom-ñaar yu ñu tasul fayuñu. am na ba léegi mais am na ba léegi yombatul. waaw ah, dégg nga su ko defee ki mujj ki. moo lay socc njàmpeeg saabu ba nga set wécc. ñu solal la sa yëre. sa bàjjan sa yaay seet benn ñeeñoom boole la ak moom. ne la yóbbul ma ko ànd ak seeni morom ñu dem ñu demee am na ñoo xam ne nag ñoo ñooñu fa la ñuy des ak ñeeño bi bàjjen bi moom du fa fanaan comme wolof yi ni ñuy def ah, day ñibbi day ñibbi waaw suñu xëyee nag bu gisee jëkkëram ñuy nekk foofu du noo saka def ñu jox ko njegenaayam mm-hmm. dégg nga su ko defee ñu nekk foofu mm-hmm. bu mu am juróom-ñetti fan ñu fóot mm-hmm. ñu fóot bu ñu fóotee mooy li mu wax bu nekkoon ne Fuuta la. Mhm. ca dex ga la ñuy ëmb yëre yi dex ga la ñuy dem. Mhm. ca la ñuy fóotee. Mhm. fii nag Ndakaaru dañuy roon rek robinet yi yëpp ñëw laaj la sa yére ñu indi fóot. ñu togg seeni baxal ñoo xam wala seen i yaasa ñu kii su ko defee kii kii ñeeño bi ànd ak yow dina yóbbu sepp dina yóbbu ali ndàkka dina yóbbu gowe dina yóbbu karité bu xëyee di la dàmp di la togg a ruy di la suppal. moment yooyu a neex nag. waaw moment dampi ci gën yi tamit noonu la. Mm-hmm. booy dem dañ lay mëgg. Mm-hmm. cosaan yi. comme li mu wax rek wax na ko sax ba pare. Mm-hmm. xanaa wax di waxaat rek. am solo waaw léegi tam boo génnee tamit. da koy def ñetti yoon. nga door a génn soo génnee solal la say yëre cosaan yi. loolu am na solo bu baax a baax ñu ngi may siyaale nag euh, juróomi minute rek moo ñu dese ci waxtaan bi Adja ma bàyyi suñuy gan tàggatoo waaw mais uh-huh. bëgg naa balaa ñuy tàggatoo uh-huh. ñu wax ma ñoom ñun dañuy wët première njëkke wët goro wët euh, ah. ndaye wët la ñoom damaa bëgg ñu xam xam ñoom nan lañ daan def ndax di ngeen daan am première njëkke deuxième njëkke troisième coono yooyu ngeen ñun ñuy daj hmm. ah. ku ñu dayale sa fit dem hmm. yéen daa ngeen ko dund seen moment ñun benn njëkke la ñu xam tukulóor yi xanaa léegi li ñu nekk fii ci Dakar hmm. ñëpp nekk nañu roy dàq ñun benn njëkke ngay am Fuuta benn njëkke fii nag Dakar la benn njëkk nga yam bu ñuy teral kooku la teral tëral bu xorom sedd mm-hmm. ak i doomi ndey mm-hmm. bañ nañ ko ba ñu naan njëkke mm-hmm. ñu ne pour naa da bandu men xaw ma nu koy wolof di maanaam sa mbokk yëpp yow la ñu yow la ñu tànn yow la ñu tànn yow la ñu teral daal sa doomi baay ki nga xam ne seen ñaari baay yee bokk ndey ak baay moo ko moom ki nga bokkal benn baay moom seen ñaari yaay yi bokk ndey ak baay yaa moom njëkkale uh-huh. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo meen Ndiaye eh, jol foofu la pulaar bu la neex ci neex yaay bu la neex la ci neex rek. <laughs> ah ñoo ngi leen di nuyu rek comme ni ñu ko waxee nag. Mm. bu fekkee de wax ji dëng na. Mm. ngeen xam ne rek ndax mm. ñu ne. Olof Njaay nee na wax du rafet. wax du ñaaw. wax dina dina ñaaw sax nga rafetal ko. wax tamit dina rafet nga ñaawal ko. Mm-hmm. ñoo leen ñoo leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yenn a xam fu ngeen jëm ak seen tele bi yàlla na leen yàlla yóbbu fu kowe kowe kowe ba ñëpp dégg leen ba fu ñu nekk ñu dégg leen ku ci amul jëkkër yal na la yàlla may jëkkër ku ci amul jabar yal na la yàlla may jabar may leen njaboot gu barke wasalaam di la jaajëfal bu baax a baax Mère Rokhaya Ndiaye la woon tan may ram si ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo sopp da baax waa tey sopp da baax kontaan naa ci yéen <laughs> uh-huh. waa ñu ngi kontaan li ngeen di waxtaan ak ñun waa ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen liggéey bi fi ngeen bëgg mu yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal mm-hmm. maa ngi nuyu sama doomu ndey uh, mayram paa mu ngi doog a yes si léegi léegi waroon naa bokk ci émission bi waaye dafa waa dafa xaw a tardé waa dafa xaw tardé waa kay kontaan nañ bu baax nag waa ñu ngi seen ginnaaw nag du ngeen bëgg rek bu ngeen fi allah dina leen ci jàppale ba aja jàpp di bu baax waxtaan bi ak neexoon kan ya? kan kan? eh, na trop ma lay bàyyi nga tàggatoo waaw xam nga waxtaan bi namoon naa la de maa la dàkka nam yow xam nga ne man sama gaayeen nga bi na amoon na solo jàngat yi nañ man rek personnellement jàng naa lu ci sama cosaan boo xam ne xaw donc ñi ngi di remercier ci oyof bi ak disponibilité bi ngeen am di remercier internet yu Sénégal TV di leen wax ne leen lii lañ leen indiloon tey kontaanoon nañ jàkkaarloo waat ak yéen beneen yoon incha allah awa kumba Adja bi na trop tamit comme ni ma la ko waxee sànq namoon naa trop parce que dafa tawatoon bu baax moo tax fan yëpp ñëwul woon di lañ jaajëfal bu baax a baax di remercier tamit euh, tan meeram si ak meero Koye Ndiaye di len jox dig daje nak ba benen yoon mhm. ma ngi nak remercier suñu cameraman bi di Moussa mhm. ak suñu assistante bi di mama mhm. mama ma ñukku <laughs> moom noonu la ko tuddee ya ngi tay mom mooy def bêtisier yi ci biir <laughs> aha di remercier tamit nak sama yaay parce que tay ñu ngi fi ci biir kër gi bu baaxa baaxa baax di ka ñaanal gudd fan ak wër wala yalla bay ko bu baaxa baax suñu kanam aha daguma la mais dang may may tam remercier ko remercier ko ba ñëwé sa yaay dalal nañu ci biir kër gi may ñu ñu tok ak xel bu dal vraiment maman ñu ngi lay remercier bu baax baax ak waa kër gi ñu ñu fi fekk yëpp mag yeeg tata yeeg ñoom ñëpp di leen remercier mais di nuyu sama chéri bébé Maodo waaw waaw waaw vraiment moom la ñu war a dëkkee waaw daf ñoo boole ci boppam dëgg la fii ci biir kër gi ak depuis paa bi mu ngi dund mm-hmm. ak ci njabootam yëpp balaa moo woo kenn ñu ngi lay njëkk a woo ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ci kanamu njaboot bi ba ci yàgg yàgg lu mm-hmm. mu xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko remercier bu baax a baax di jàppale bu ñuy jàppale tamit ah, xam nga kii tamit yor ay doom tamit yombul. Mm-hmm. ñu ngi koy baalu àq tamit ci loolu bu baax a baax su ma continuer nag sama xol day tooy. <laughs> ah loolu ak ñu koy may voilà di nuyu bébé Maodo bu baax a baax. di ko def gros bisous. Mm-hmm. Ah, di leen jox di daje nag ba beneen yoon incha allah à la prochaine ci Sénégal TV. au revoir. <laughs> baby.